Euh, di leen ziare ci weeru màgg wi teru di weeru màggal euh, di weer woo xamante ni mu ama am solo la euh, ci jullit ñëpp rawatina taalibe murit yi ndax dañ cee am ak jago waaye nag nuyoo bi ak ziare bi yëpp ñu ciy jiital Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fii lool te ànd ak wér yàlla jàppale ko naa yim am yëpp mu eggale ko ci jàmm ak salaam te ñu ànd kook moom ni ko sëñ Pape waxee euh, ren incha allah niñ ko baaxoo defee rek euh, at mu nekk euh, kuréel gi nga xam ne moo yor wàllu wàllu jokkoo bi ci comité d'organisation bi ci Serigne Cheikh Abdou jiite ko dafay jëflanteeg daayira raw dora yaaxin nga xam ne daayira la boo xam ne bu autonome la moom sax moo mag kuréel gi moo ko fi jiitu waaye ndegam liggéey bi ñoo ko bokk daayira Rawdu Rayaahin dafay taxaw taxawaayu bras technique ci euh, comité d'organisation bi lépp luy lépp luy continue ci li ñu war a waxtaanee ci émission yeeg ci kii yi moom moo ciy liggéey yàlla dogal nag euh, comité scientifique bi wala ñun li ñu tuddee ci suñu daayira bi commission culturelle euh, man ci laa nekk ci tur woowu tamit ci laa ñëw ngir jottali leen liñ tëral ci programme forum bi nga xamante ni bu ci yàlla àndee ni mu ko waxee war naa war naa am euh, ni ngeen ko xamee màggal Touba euh, xew-xew la boo xamante ni yëmul rek ci biir Sénégal waaye dafa yaatu euh, événement international la ay réew yu bari dañ ci ñëw di fi teew diplomate yi dañ fiy ñëw diaspora bu Sénégal bi dañ dañuy ñëw ak seen taxawaay waxu waxuma la ak biir réew mi nag fu ne la nit di jóge muy xew-xew boo xam ne tamit euh, euh, presse bi mooy euh, këru taskatu xibaar yi ci an ci seen wuute yëpp moo xam yi ñuy gis la wala yi ñuy dégg wala yi ñuy bind wala sax site internet yi yëpp dañ ciy am taxawaay bu ama ama am solo ci loolu nag dafay dafay jaadu kon at mu nekk bu màggal gi ñëwee nit ñi buñ ñëwee màggal si ñu bañ a yem rek ci mbir yi faaleen yeeg jaañeen yeeg yu mel noonu ay jangeen yi muy xewlu rek ay bernde mu jeex ñu yëkkati jotaay bi waaye eh, lu toll ci ñaar fukki at eh, wala lu ko jege lu ko manqué tuuti eh, Serigne Saliou Mbacke yal na yàlla dolli leeram moo ñu joxoon ndigal si bu màggal ñëwatee ni ñuy berndeel nit ñi ci wàllu xeewal gi ñu berndeel leen ci wàllu xel ak wàllu roo te mooy ñuy am amal ay daje yoo xamante ne ay waxtaan la ci waxtaane lépp loo xam dafay soxal réew mi du ne rek yoonu murit waaye loo xam ne dafay soxal réew mi léeg-léeg sax da koy dépassé soxal euh, àdduna bépp ci ay question yoo xamante ni yu ama am solo la ñu ciy woo nag ay borom xam-xam yoo xamante ni mën nañoo ñii dañuy jóge biir Sénégal euh, ñii ay taalibe murid lañ ñii duñ ay taalibe murid waaye li ñu soxal mooy ñu euh, jegeele jegeele gisiin yi jegeele doxin wi ba ak yomb mën a am ci jàmm ak dëkkoo bu rafet euh, li ñuy tudde cohésion euh, ci lool nag ren incha allah euh, dañuy amal benn from ni mu ko waxee muy benn ndaje boo xam ni ab bis lay doon ab bis lay doon ñu di ci waxtaane tomb bu ama ama am solo boo xamante ni soxalul rek Sénégal waaye soxal na Afrique soowu jant ak yeneen réew yoo xam ne sax nekkuñ ci biir Afrique ca mooy ngirum imam Malik euh, courant la courant religieux la boo xamante ni euh, ci wàllu fiqh mooy nu ñuy dundee suñu diine euh, naka naka lañ koy dundee da cee am ci àdduna bi parte bu ama am solo boo xam ne ñoom boobu lañ lañ jël comme ni nga xamante dafa am ay idéologie politique ñi nekk ay libéraux ñi nekk ay socialistes ñi nekk leneen ci wàllu fiqh tamit ci wàllu diine tamit noonu la ci amee ci wàllu pas-pas noonu la ci amee léegi nag euh, imam Malik dafa doon ngir moo xamante ni dafa yaatu Afrique sow jant moom daanaka mën na maa wax ni ñoom ñëpp euh, euh, ñu ñoom la moom la mu doon boo xam ne tamit dafa am ay spécificité maanaam dafa ràññeekoo ci wàllu nekk facteur de stabilité maanaam dafay tax ak dal am ci àdduna bi déggoo am ndax dafa doon ngir moo xam dafa ubbeeku ba noppi am modération dafa am dafa dafa dafa diggu doomu daal ëppalut ci benn côté looloo tax suñu mag ñu baax ñi ku mel ne que Serigne Touba radiyallahu anhu moom bi mu ñëwee boobu la tànn boobu la tànn ci dundiinu diineem moom euh, ci la yar tamit taalibe yi solo soosu mu am nag euh, ci biir Sénégal euh, ca du daal mu murid yi rek ñoo ko yor waaye ci biir Sénégal ak ci réew yi dëkkandoo yu senegaal yi looloo tax ren ñu gis ne dana jar ñu waxtaane ko ndax tolluwaayu àddina bi ci ci wàllu yëngu-yëngu àdduna bi naka jekk dafa aajowoo ak dal dafa aajowoo ak dal waaye jamono yii ñu toll ci la ci la ci la gën ci la ko gën a soxlawoo ndax fu ne mi ngi yëngu fu ne mi ngi yëngu euh, ci yëngu-yëngu yooyu yëpp instabilité yooyu yëpp nag bu bu fekkee ne diine moo ci wàll si rek ci lay dafay gën a jafe dafay gën a jafe lijjanti ndax dafay sori ci nit ki bokkut ak ay wuutey politique yii wala ay wuutey nangam waaye wuute wuute ci pas-pas wala dundinu diine moom bu ci dugg dafay gën a doy looloo tax nag ñu ne dana jaadu léeg-léeg ñuy toog di waxtaane yu mel noonu moo tax ñu tàmm euh, tomb boobu mooy ngirum imaam Malik ak euh, ak ak sas wi muy bay ci wàllu jegeele euh, kii peuple peuple africain yi kon ci noonu lañ koy tànnee incha allah lañ koy waxtaane mu doon le thème central boo xam ne dafay amaat ay sous-thèmes danañ ci ñëw léegi Euh, ñu am ci nag benn euh, objectif général boo xamante ne jubluwaay bu mag boo xam ne li ñu kii mooy fexe ba borom xam-xam yi gëstukat yi xeltukat yi am jotaayu daje ci seen biir ànd ak seeni wuute ci wàllu nationalité ci wàllu couleur ci wàllu euh, dëkkiin ñu mën a am daje occasion pour daje toog face à face waxtaan ci sunu biir ci li nga xam ne ñoo ko bokk ci mënuñ koo séddoo te buñ ko sàmmee sàmmeen wi war mën nañoo indi jàmm ci suñuy réew euh, ñu ne kon nañ ci waxtaane jël ci ñoo xamante ni ci biir Sénégal ñoo xam ne ñenn ci euh, euh, ci ay murit la ñuy doon ñenn ñi ay xaadir la ñuy doon ñenn ñi ay tijaan la ñuy doon am na ñuy jóge Maroc am na ñu jóge Mauritanie at mu jot bu ñuy def waxtaan woowu bu fekkee dañ ko yemale ci biir Sénégal rek dañ koy jël ci confrères yi mooy tariqa yi ak ci association islamique yi ñoo ñëpp dañ lañ ciy boole euh, ndax dafa doon réew mi dafa doon loo xam ne ñu ñëpp la soxla wo te kenn mënu cee dem bàyyi sa moroom faawu kon ñenn ñu nekk lañ bokk ñu ciy faral di waxtaan kon dañoo bëgg a euh, joxe occasion rek pour borom xam-xam yi ak gëstukat yi ñu mën a toog waxtaan ngir gis yi ni jege ay wuute yu sew sewaan yi ñu dese rek ñu gën a jegele xel yi ak xalaat yi gën a jegele taxawaay yi su ko defee loolu dana tax suñu askan gën a amuk dal ndax soxloo na ko lool euh, gën a amuk dal ñu gën a jege tuuti ñoo xam ne suñuy wuute suñuy wuute dafa war a nekk lu ñuy soññ ngir ñu gën a waxtaan gën a jege man su fekkee nit ki dama wuuteeg moom ci benn mbir wuute boobu wuute tax ma daw ko waaye dafa wax dafa ma war a sax jañ ma gën koo jege xool lañ wuute lan laa ca mën a lan moo ma ca mën a jariñ man lan laa ca mën a jariñoo li ca des ma ñu jéggalante ci moom it naka noonu mu jege sama ci loolu moo tax yàlla wutale nit ñi su ko neexoon kenn lay bind rek def ko benn photocopie rek tasaare ko mu jeex waaye defi wut noonu kon nii la ko bëggee kon il faut que tamit ñu ñeme wuute yi waaye tamit ñu gën a am xajoo ci jege kon loolu mooy objectif général bi boo xam ni moo kii euh, objectif spécifique yi nag mooy buñ ko pàcc pàccalee tas ko tuuti bi ci jiitu mooy ñu fexe ba euh, xamal nit ñi. ni ngiiram imaam Malik mii bu ama am solo la euh, wàccuwaay bi mu am ci diine it bu rëy rëy la ñu fexe ba leeral leen ko bañ xam ko ca bu cosaanu la ndax boroom mi ngi ko jóge jële madinal munawwara ca foofa fii foofu la yonente bi doon dunde lam doon dund ànd ak ñi ko doon ñi ñi ñi doon dund moom ñu ko jokkalantoo ba mu egsi ci moom nga xam ne kon euh, loolu lu wér la loolu nit ñi war nañ koo xam bu baax a baax wax ko war leen tamit li mu ràññee ko lu tax ñu war koo téye lu tax ñu war koo sàcc euh, euh, téye euh, sàmm ko bu baax a baax ndax dafa am ouverture ba noppi tamit kii bi ci beneen bi ci des mooy ñu wan nit ñi xamal leen ni leen tey jii bu ñu amee jàmm saña saña mën a jàmm suñu borom ci ak dal dafa am ay mag yu jiitu bay ci waar wu a am solo mooy kon ñu xamal leen yan coono la mag ñi def mag ñi def ba réew mi toll fii ci dal ci jàmm ci dëkkandoo bu rafet bañ tala euh, am ak jàmm yàlla loolu war nañ ko fésal ñu xam ko lan la mag ñi defoon su ko defee bu boobaa ndaw ñi ñoom it danañ ko kii mag ñi nag su ma ko waxee bu fekkee ne temu ren bi la moom euh, nationalité yu wuute te bokk ngir mi ñoom it danañ ciy dugg ki jóge Maroc dana def loolu ki jóge Mauritanie dana def loolu yan effort la waa Mauritanie def ngir sàmm ngir mi ba seen réew egsi fii mu egsi tey bu dee marocain bi tamit euh, yan euh, effort yan coono la waa Maroc def ngir ngir mi sax fa ñu sàmm ko réew ma di amuk dal bu dee waa Sénégal ndegam dafa am ay confrères yi euh, ñoom it dañuy jël cadre jël tijaan yi jël murid yi te ñoo ci gën a ñoo yooyoo fi am sax mën na maa wax ne su ko defee ñoom it ñu toog waxtaan ndax ñoo ko bokkule su ko defee ñu wax suñ mag ñooñu ñoom it yan coono lañ def ba sàmm ko ba mu egsi ci suñuy loxo ak ñun yan coono lañ war a def ba nii ñu ko téye ci loxo ñu mën koo jébbal yeneen génération yi ñëw te dara du ci sikk réew mi tamit duñ ko dugal ci guuta goo xam ne duutu ci mën a génn ñetteel bi ci objectif spécifique yi mooy ni euh, ñu nag ñuy conscientiser conscientiser nit ñi euh, ci anam boo xamante ni xamal leen ni la ngir mii bu ñu rëccee boo tuut duñ amati du gaaw ñu am bu bu ni mel ci ni mu mën a sàmmee ak dal ci am réew loolu faw nit ki ñu xam ko nit bu xamut valeur li mu yor mu sàmm ko du yomb moo tax loolu tamit ñu conscientiser sensibiliser leen bañ man koo kii nga xam ne ñett yooyu daal moo gën a fës ci yi nga xamante ni moom lañ bëgg ñu xamal leen lañ mooy ngir mi ban wàccuwaay la am ci diine ji ñu xamal leen yan coono la suñu mag ñi defoon bañ egsi fii réew mi to nekk ci jàmm ak ñun lan moo ñu war pour ñu mën koo jàllale ci yeneen génération yi bu ñu rëccee boo wutul euh, réew mi daal duutu yomb duutu yombati ndax gis nañ àdduna bi ni mu jaxasoo thème bu mag boobu nag nga xam ne mooy thème centrale bi <coughs> dafa am ay sous thème yoo xam ne euh, ci lañ ko jëlee euh, bu boobaa dañuy jël bu mag bi mu nekk sous forme d'introduction boo xamante ni ki koy def biir Sénégal lay jógee daf ñuy présenter ngir mi le rite ak ban place la am ci biir diine ba mu leer campé le débat su ko defee nag yeneen intervenant yi door a ñëw ki jóge dana ñu wax yan coono la marocain yi def ba euh, ngir mu egsi fii mu egsi seen réew tollu fee mu toll ci ak dal waa Maroc waa Mauritanie def ko waa Sénégal def ko bu boobaa nag bu bis ba incha allah chronogramme bi nii lañ bëggee mu tëddee nii dana am rek cérémonie bu simple d'ouverture cérémonie d'ouverture boo xam dañ koy simplifier bu yam kàddu yi du bari euh, dañ dañ koy ubbi rek euh, ci jàng alxuraan jàng xasida su ko defee ñaari kàddu rek daanaka moo fay moo fay jib euh, benn bi sëñ Ahmed Badoy mi jiite le coordinateur général Rawdu Rayaahin mooy jël kàddu rek pour tatagal gan ñi dalal leen ci loo tolloog juróomi ci loo tolloog fukki minute su ko defee ñu Euh, daal di dugg ci euh, dugg ci ñu jox sëñ Abdou sëñ Cheikh Abdou bi nga xam ne moo jiite communication moom it mu yëkkati kàddu euh, tuuti jëmale ko ci gàññeek public bi su ko defee ñu door a tàmbali jotaay su ko defee ci suba gi danañ am ñaari jotaay jotaay bi njëkk bi mooy mooy bi campé campé thème bi ca mooy mu wax ñu ngirum Malick ban wàccuwaay la am ci diine lislaam bu ñaareel bi mauritanien bi la ñuy indi euh, sénégal euh, marocain bi la ñuy indi mu wax ñu marocain yi yan effort la ñuy def ñoom ñëpp euh, jokkoon nañu ñoom seen tur yëpp kii invitation yëpp dem na su ko defee moom it mu wax ñu ko bu noppee ñu jox ma ñu jox mauritanien bi mu def lu ni mel kenn ku nekk danañ ko jox 20 minutes 15 20 minutes mu présenter exposé kii yam su ko defee ñu jox ñi fi nekk ci borom xam-xam yi fi nekk kilifa yi ñu commenté ci euh, bu noppee ñu yëkkati jotaay bi def benn pose boo xamante ni pose prière et déjeuner lay doon xam naa faa leen yeeg jaañee ñi ñoom pause déjeuner la ñuy wax waaye su ko defee ñu dallu tuuti ba ngoon ñu daal di dikkaat buñ dikkaatee nag partie ngoon gi sénégal yi lañ koy jagleel parce que teraangay gan moo tax ñu jiital ñu jiital euh, étranger yi ci waxin su ko defee bu ñëwee nag. xaadir yi ñoom la ñuy njëkk a euh, jox euh, ñu ñu ñu présenté ñu ko ki koy def mi ngi jógee boori kokki nguraan lay jóge euh, moom yónnee nañ ñu ci kenn ku ci nekk nag lañ la wax nga préparé ko da nga koy préparé yónnee ñu synthèse bi ñu xool ko ba ba ki def ci ba tontuwaat la bañ stabiliser dara ñu door ñu door koo indi loolu it daf cee am solo ndax dafay tax ñu gën a sécuriser le discours waaw loolu comme ni ko euh, kii yëpp forom yu mag yëpp di defe noonu lañ koy defee incha allah su ko defee xaadiri yi kii fii représenté la confrérie xaadiri moom dafa exposé moom it ci ay 20 minutes yooyu wax euh, waa waa waa ngir waa confrérie xaadiri bi tariqal yan taxawaay lañ ci am ci sàmm ngir moomu bu noppee ñu jox koo xamante ni mi ngi jóge jaamal moom dafay wax au nom de la confrérie tidiane su ko defee wax yan effort la tariqa tijaaniya ci biir senegal def pour ngir mi egsi fii bu noppee ñu ñi ñun ñi amal jotaay bi ñu jox ko jóge Touba euh, ku ñu wax Abdoulaye Diop Almaliki yi moom dana euh, présenté effort yi nga xam ne yoonu murit def nañ ko ba euh, mbir mi egsi fii confrère bi egsi fii bu noppee ñu ubbi débat jox nit ñi kilifa yi fi teew ñu réagir wax ci seen xalaat après ñu tënk ko door a euh, door a euh, door a kii door a jàll nag ci cérémonie de clôture bi boobu moom dañ koy dañ koy yaatal parce que dana am ay invitation d'honneur yu ñuy kii par les grandes personnalités du Sénégal ak yu mel noonu ñoo xam dañ koy dañ koy teewe bu ci yàlla àndee Serigne Cheikh bas euh, porte-parole du khalife général des Mourides moo koy moo koy def waaye laataa loolu daañ def daañ def la déclaration finale maanaam synthèse forum bi ñu def déclaration de Touba ñu wax euh, lan moo juddoo ci jotaay bi yéen recommandation lañ ciy def su ko defee door a jox euh, sëñ Cheikh bas mu euh, sànni kàddoom daanaka loolu mën nañoo wax ni lu aji ci forum bi xëy na loolu danañ ci mën a danañ ci mën a doy mais loolu benn rek la ci ne comme que dafa nekk événement phare bi moo tax ñu jiital ko noonu ci ci fukk fan ak juróom ci weeru safar ci weeru màggal gi lay am maanaam bu màggal gi desee ñetti fan yaakaar naa du sore rek le 23. le 23 septembre bisu alxames lay war a doon bu ci yàlla àndee euh, euh, am na nag yeneen jëngut yoo xam ne laata laataa bis bi dana am euh, ci loolu ci activité activité yi nga xam ne at mu jot dafay faral di am bokk na ci at mu nekk danañ def ay waxtaan yoo xamante ni ci penc yi lañ koy def penc ci yi ngir gën a mën a sensibiliser waa tuubaa yooyu dañ koy jagleel. mbokki sëriñ bu mag bi Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ak taalibe yu mag yi àndoon ak moom dund ko euh, jege ko euh, ñu jox leen ñu jagleen leen penc mu ci nekk kilifa gu nekk ñuy dem ci noonu lañ koy tànnee ren nag euh, sëriñ Mbàkke Kajoor doon mbokk sëriñ bi ak ku ñuy wax sëñ Mouhamadou Gueye jëmmooy ñooñu lañ koy jagleel benn bi sax tey jii la war a am bu ci yàlla àndee ci fii la fi Daaru Minaan la war a amee Euh, euh, tomb bi ñu fay waxtaane mooy euh, yàlla dafay wax ni nit ki lu muy woote ci lu baax na ca jiital ay mbokkam laata muy jàll ci ñette des thème boobu na nako la ko sëriñ bi jëmmalee moom bi mu ñëwee ba indi rupture bii reforme bi mu indi woote bii mu indi ñu tudde ko yoonu murit ban taxawaay la ci amoon digganteem ak mbokkam yi ko gënoon a jege xam nga ni loolu tamit yombul am say mbokk xëy xëy woote lu bees mën naa indi ay jafe-jafe yónnante yépp jafe-jafe yooyu amoon nañ ko loolu tamit moom la ñuy tey beneen bi ci des mooy al alhimmatul aaliya mooy kawe yitte bañ a tuuti bët rëy bët te loolu la sëriñ bi woote alhimma moom la ñuy waxtaane ca euh, ci penc ci ci fii ci lañ koy defee moom boobu la 14 lay doon incha allah euh, boobu tamit naka la ko sëñ Mouhamadou Gueye jëmm jëmmale taalibe murid yi naka lañ ko jëmmale ba li ñu réaliser lépp ñu réaliser ko ci ci kaw yitte jooju yitte ju kawe jooju loolu moom lañuy wax penc yooyu nag ñun liñ ci jublu mooy rek di dem ci quartier yi ci biir Touba du génn Touba nag ci quartier yi ci biir Touba waxtaan ci ak yi njabootu mag ñi su ko defee ñu ñu mu nekk wàccaayu màggal euh, beneen bi ci des mooy euh, euh, mooy bisu màggal gi conférence bi ci guddi gi boobu mooy moom it événement phare la bu am am solo boo xam ne ci cosaan sax loolu moo taxoon daayira bi soso guddi màggal gi am na waxtaan wu mag a mag wu ñuy amal fii ci salle de conférence bi fii thème mu bi mooy jigéenu murid yi ban taxawaay lañ am ci wooteb sëriñ bi waaw la femme mouride euh, la position de la femme mouride euh, par rapport ak à la euh, kii léegi su ko defee yooyu ñu waxtaane ko mu doon yoo xamante ni am a am solo la loolu nag bokkut ak émission télé yi ñuy def ak ay yu mel ne une trentaine d' yoo xam ne at mu jot dañ koy dañ koy dañ koy préparé waajal ko tànn benn thème central boo xamante ni moom la mooy mooy kii ren mboolem émission yi télé yi ñuy préparé avant la màggal nag laa wax avant la màggal balaa màggal gi yu ci yëpp dañ koy jooyal mu jëm ci fàgg ween wu law xam nga ni nit ñi léegi fi ñu toll ci wàllu am-am ak wutin daanaka dañuy dañuy bale rek yooyu nag dana taxaw dana jar léeg-léeg tamit ñu waxtaan ceeg nit ñi. Euh, ñun ci suñu liggéey suñu anamu liggéey xam nga bu dee thème central bi mën nañoo wax ne comité d'organisation bi moom moo ko war a tànn normalement bu dee am moom moo ko war a tànn. mais ñun ci suñu activité bopp suñu activité bopp émission télévision yi ñuy def dañ naan thème bi lii la boo xamante ni yeneen sous thème yépp dafay am rapport ak moom loolu ñun ñun la gën a soxal lool lool ci misaal ren dañoo jël fag wén wu lew liggéey bu lew mu doon thème boo xamante ni mboolem émission yi ñuy def yépp ça tourne autour de ça euh, loolu ñun la concerne bokkut ak bu waa comité d'organisation ñoom seen Cheikh Abdou tànnoon benn tem ni thème bi ren euh, comité d'organisation bi ci lay ci lay liggéey euh, bu dee thème mu forum bi moobu thème mu bi la thème mu forum bi moom it temu boppam la bokkut ak ñun euh, tem central bi ñu tànnal suñu bopp mu jëm ci suñuy émission bopp nga xam ne moom bu doon toon forum bi tamit day am waaw am nañu suñu biir Sénégal da gis yenn xew-xew diine dañ naan ne ñoom seen thème mu nangam bi événement bi lii la bu dee Touba nag moom yaakaar naa sëñ sëñ sëñ Papa ngi nii yaakaar naa bëriwut lu ñuy def lu mel noonu lool lool euh, naan thème central bi lii la ak nangam yooyu bëriwut luñ koy luñ koy luñ koy def ba tax na daal thème forum bi moo am ak te ak euh, yeneen émission télévision ya nga xamante ni ci la ñuy ci la euh, kii waaw léegi lu aju ci impact bi jeexit yi nga xamante ni jotaay yi dana ko am li ma bëggoon ñu ràññale ko tamit moo diggante forum bi ak colloque dafa am koloog boo xamante ni moom dafa am agenda boppam par ñetti at lañ koy def loolu leneen la mais forum bii moom euh, benn événement bu bu bu am ren la pour euh, gën a gën a gën a euh, liggéey bi gën a gën a fees loolu la waaye bokkut ak koloog koloog moom par trois ans lay doon agenda boppam la ñetti at yu nekk ñu def ko ren nag colloque warut am mais dañoo def forum. nga xam ne benn bis rek doon bu xaw a gën a moo gën a tuuti dayo par rapport bu doon benn ko kilo léegi nag li ñuy def mooy saa bu jeexee bu nekk euh, yéen ca jëlee ci ay recommandation ci benn document lañ koy def jébbal ko sëriñ bi xam nga ñun suñu wàll mu ngi aju ci rek ci li ñu war a leeral ñu leeral ko yu ñu war a wax ñu wax ko léegi nag ñay jël dogal ñooñu ñeneen la instance yi nga xam ne ñoo war a jël dogal ci yoonu murid moom document bi dafay egg ci ñoom yeneen décideur politique yi wala leen loolu moom yeneen léeg yeneen yeneen mbir la yoo xam ne xëy na ñun duñ ci mën a àddu lool ci loolu la ñuy kii daal waaye bu fekkee ne ñun suñu liggéey euh, euh, ma nit ñi ñoom dañuy jokkoo ak ñun lu bare bare bare di rafetlu lool ñii di ñu jox seen xalaat ni euh, lii bu ngeen ko defee woon nii lii nangam ci biir réew mi ak ci bitim réew loolu rek pour ñoon doon na sëkk impact ñu ne kon nit ñi nekkati ñi ngi ànd ak ñun ñu bare dañuy kii léeg pour mu pour ñu valider ko dañuy ñëw jox ko sëriñ bi ci bu ko sëriñ bu ñu ko bu ko sëriñ bi jot daf ñu koy jox ñu xool ko wax ci lan moo ci seen xalaat su ko defee ñu ñu kii xeetu validation validation scientifique wala boog technique yoo xam ne ci bari kii loolu it euh, li ñu ko may macha allah yaakaar naa ni anam bi ñuy liggéeyee yooyu ci la ak jeex jëm am ci nit ñi ba nit ñi comprendre ñu wóoluñu ba saa bu ne ku def dara rek da ngay ñëw wan ko présenté ko waa waa kii ñenn ñi sax dañuy ñëw naan ñu dañu bëgg a lier partenariat ak waa waa Radoria